هذا الذين حافظوا على صيام شهر به أخلق باب للإيام فاز الذين حافظوا على صيام شهر به أخلق باب للإيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wakki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu sante yàlla jullit ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di niyu di leen ziyaara waaye di ziyaara bu baax képp koo xam ne mu ngi topp uh, seen daari xasida mel ni fi lañuy amalee jotaay am solo yi nga xam ne ñu ne koon topp bi ñuy tàmbali koor gi jëmoon ci wàllu koor te it ñu bëgg ci defaat beneen tomb boo xam ne bu am solo la jëm ci li ñuy wax zakatul fitri muy muddum koor eh, di sant bu baax it boroom daal ji nga xam ne ci jàppandalam mooy am xalaat am solo yi di sëriñ Bachirou la nekk ku yittewoo diine am ne lool ci di ko tasaare ñu ngi koy sant ci loolu bu baax a baax di ko ñaan yàlla yokk daara ji bu baax a baax gën ko barkeel def ci tawfeex bu baax a baax di ñaan képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel jotaay bi ñaan suñu kàddu fekk la jàmm tey nag niñ ko waxee mooy tomb buñ tànn mooy waxtaan ci muddum koor ndax dafa nekk loo xam ne lu mat a xam la nekk lu mat a bàyyi xel ni ko waxee woon bi ñuy um koor rek ni mu waree jullit bi suñu dugg ci koor ak jaam yàlla gu mu doon mu xam la ci lislaam wax noonu la waree ci moom bu dee ci muddum koor yi mu xam ko ala kulli xaal àtt euh, yi ci aju bari na wala nit ay sew sew noonu it la amee ay njumte yoo xam ne mbokk yaa ngi ko ci def loolu na lañu bëgg a leeral ngir ñëpp mañ cee gindee ko am ci leer nañ insha Allah bi kon ñi xam ne euh, muddum koor euh, yonent bi saa salaam moo ko santoon xeet wi ci atum ñaareel ca gàddaay ga sorewul ak koor sorewul ak azaka waaye wax na ne moom moo jiitu azaka euh, ibnu omar waxoon ne ci xadis boo xam ne xadis bu wér la defoon nañ ci wér gi te ñuy sukkandiku ci ne dafa war foofu la ñuy jëlee seen dalil mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri min ramadana saan min tamrin aw saan min shacirin ala wal xurri wal dakari wal untha wal sagiri wal kabiri min al muslimin nee na rasulullah sallallahu moo farataal ci xeetu yi saa bu weer koor joxee ñu génne askay muddum koor nu muy toll mu ne ab saa lay toll ci tàndarma danañ ci ñëw lu saa di war a toll ci ay kilo wala ci sha'ir mooy saaño war na ab jaam war as gor war na góor war jigéen war mag war ndaw ci ab jullit loolu liñ ci dégg mooy kon asakay muddum koor dañoo bëgg mu yaatu dañoo bëgg mu yaatu moo tax ñu ne nañ ko génneel ab jaam génneel ko as góor génneel góor génneel ko jigéen dañoo bëgg mu yaatu moo tax ñi bëgg ba ci liir yu sax dañu koy génneel incha allah rabbi kon fii lañu sukkandiku ne dafa dafa war boroom xam-xam yi nag am nañu ne dafa war comme farata la maanaam soo ko defut maanaam bàyyi nga farata ju ju la war nga am ci bàkkaar am ñu ne dafa war war ko sunna su feddaliku nga xam ne soo ko mënee defoo ko am nga ci bàkkaar mhm. waaye li war war ko sunna su feddaliku ak li war war ko farata le benn la le benn la kon loolu it lu ci mat a bàyyi xel la waaye am na xikma xikma mooy ban falsafa moo tax yonent bi saasam santaane ko ndax ñaare eh, sharia mbokk yi ñu bàyyi xel ne yàlla yi ñu sant yëpp bu ci nekk am na xikma muy falsafa bu ne ci suuf boo xam ne moo tax ñu sant ko nga xam sooy xool intérêt la yoo xam ne day dellu ci jaam bi koy bi koy def ñu ne min xikmati zakaatul fitri annaha tutahiru nafsa saim bi njëkk mooy day laabal bakkanu ki woor maanaa ki woor tey euh, su wooree ba koor gi jeex su génnee muddum koor lépp lu defoon ci ay caaxaan ay njuumte benn mu xool lu mu war xool mbaa mu déglu lu mu war déglu mbaa mu wax lu mu war wax mbaa sax mu dem fu mu war dem yooyu nga xam ne nag warula woon ci koor gi ndax woor dëgg-dëgg mooy nga bàyyi lépp loo xam ne lu yàlla tere la bi nga waree nag léeg yi ngay def muy ay njuumte di bàkkaar yooyu rasulullah sallallahu alayhi neen soo génnee mudd mu koor da koy faxas maam day faxas loola ca ca sa koor ga kon mën nga ne day gën sa ko day tax sa koor gën a sell muy benn ñaareel bi it day nekk eh, maanaam edd te muy ndimbal ci ñi ñàkk kama annaha tughni al fuqara an su'ali yawmal iid waaw day tax eh, ñi ñàkk duñ génn di laaj te mbokk jullit ñëpp dañu war a bokk benn yëguwaay bokk lu ñuy sentir jul bu nekk fexe ba bu feet jot mukk muy korite walla tabaski nga koy dundee ak sa njaboot ci nam leen gën a neexee ak xel mu dal am jullit ñoo xam ne ñoom amuñ luñ ko ko feetoo loolu lañ bëgg nag ñëpp yëgandoo ko nga xam ne doo nangu sa menn mbokkum jullit di souffrir ci bi wala muy génn di laaj yi moo tax yéen bi kon nañ génne mu muddum koor yi jox ko ñu ko soxla ngir ñi feetu ñëpp ñoom jullit ñëpp moo tax Ibn Abbas waxoon ne yéen saa dafa farataal euh, muddum koor mu nekk lan tuufaratan li saaim min al wa rafasi wa tuumatan lil masaakin wa qaala ugnuhum an suali fi hada al yowm Ibn Abbas ne yonent bi dafa farataal asakay muddum koor ngir lan day laabal ki ci ay caaxaan ak i mbuusóor waaye nekk ñam wu ñeel miskin yi mooy ñàkk ndax yonent li mu waxoon mooy yéen jullit ñëpp dénk naa leen te war na leen na ngeen fexe ba bisub korite bu mel ne mbokkum jullit génn di laaji lu mu yóbbu këram nga xam ne balaa génn laaj yi ñu génnee mu dum koor yi jox ko ko mu am lu mu dépensé ci bis ba dund dund gi muy feetu feetu gi moo moo moo gépp ci xel mu dal loolu yonent bi sam bu jublu maanaa ci sant ko te loolu day dugg ci wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen dimbalante ci mbaax ragal yàlla kon jullit dafa bokk ci lislaam système mooy social mooy dimbalante te loolu feeñ na ci maanaam ni ko yonent sam santaane muy mu dum koor kon loolu mooy xikma bi su ko defee euh, wax nañ la farata la walla dafa war kam waru sunna alaa kulli xaal ku génnewut te mën ko am nga bàkkaar du tee na sa koor nangu maanaam ki ku génnewut du tee kooram nangu na kooram wér na waaye kay am na bàkkaaru ñàkk a def lu yàlla santaane loolu moo tax bàyyi xel la ni muy toll nag meq miqdaaram ak ci la nañ ko war a génne ñu eh, muddum koor ni mu war a toll mooy ab saa luy saa ñi ne mooy ñaari kilo ak liibar am na ñu ko wax 2 kilo virgule 6 am na ñoo xam ne 2 kilo virgule 35 waaye ala kulli xaal daal nit ki su génnee ñaari kilo ak liibar ndax dafa am ñu wax ne ñaari kilo ak ginnaaw ak liibar am ñu wax ñaari kilo képp am ñu wax ñaari kilo ak liibar kon yow soo génnee ñaari kilo ak ginnaaw ak liibar génne nga li gën a diggu doomu su boobaa wér na ndax ñeenti mudd mooy benn saa te mudd du sore ak liibar du sore ak liibar te ñeenti liibar maanaam mooy ñaari kilo loo teg mu mat ci liñ koy génnee ca la ëpp ca la ñuy dundee ca ca dëkk ba moo xam muy mboq moo xam muy ceeb moo xam muy dugub moo xam muy ñebbe ndax ibnu abu saïd day wax ne kaana kunna id kaana fi na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuxriju zakatul fitri an kulli sagirin wa kabirin xurrin aw mamlukin saan min taamin aw saan min aqitin aw saan min shacirin aw saan min tamrin aw saan min zabiwin nee ne daanañ génn azakay muddum koor tuba rasulullahi mi ngi dund sallallahu alayhi wa sallam ñu ko daan génneel mag ak ndaw gor ak jaam mu ngi daan toll ab saa ci ñam lu ñuy lekk moo xam muy fromage booba muy dax moo xam muy li wax saaño walla bele wala mboq wala tàndarma wala raisin nee ñoom yii ci ñu ko daan génne te boo Rasulullah sallam euh, mi ngi mi ngi ci kaw suuf mi ngi ci kaw suuf loolu kon li nga ci déggee mooy ñoom seen jamono li ëpp ci liñ daan utiliser ci bisu feet yi mooy ñam ndax Màkka ak Madina ak dëkk yi war foofu booba seen dund li ëpp am soo lay nekk wala yi ma wax benn muy tàndarma mbaa raisin ci loolu lañ daan dund. li nga xamante ne àdduna ceeb tasaaroo na yenn lekk yu ba tasaaroo boobu loolu amagut furu yi danañ ko dundee ñoom it kon liñ ci dégg mooy ñooña lañ doon dundee lañ ko daan génne te loolu mooy li gën a wér. ndax des na ko génne ci lu dul ñam wala déet am na ay wax ci boroom xam-xam yi am na ñu ne li war mooy ñu génne ko ci xeeti ñam yi al waajibu an tuxraja zakatul fitri min anwaai taam ñun li war mooy nañ ko génne ci xeeti ñam yi ñam bu mën a doon kon lañ ci dégg mooy bu doon ñoom fu mel ni Sénégal dañaan kon génne ko ceeb walla dugub wala ñebbe wala mburu wala mburu mooy mooy li ñuy faral di utiliser di ko dundee am ñu ne kenn waru ko def mu nekk monnaie muy xaalis lu dul daruriya daruriya mooy li ñuy wax lu mënta ñàkk nécessaire te dañuy wax ne euh, ad daruraat tubihul mahzuraat su ngant amee rek li ñu tere léegi day dagan li tax ñu ne ñoom kenn du ko génne ci euh, lu dul ñam ñu ne yonent bi saa jamonoom xaalis amoon na te mos koo génne ci or mos koo génne ci xaalis saxaaba yit noonu ñu loolu saxut donte am na ñu wax ne Maas ibnu Jabal yónni saa sama soo ko yónni mu dem jël asaka mu dum koor jël ko yére ca fa demoon ndax foofa yére fa yére fa gënoon a bari te yére yi su ko yëndee Madina it ñoom dañ ko soxla loolu wér na ne Maas ibnu Jabal def na ko waaye alaa kulli xaal su ñëwee ci almazahib muy masaahibul arbaa te mooy imaam Malik Abu Hanifa yi Ahmad ibn Hanbal seen mazhab yi nga xam ne mooy école yi gën a rëy ci lislaam nga xam ne li ëpp tey ci sharia ci ati lislaam ci ñoom la ñuy dellu ñoom luñ luñ ci wax Malik ak yi ak Hanbal ñoom li ñu wax mooy wala su ko génnee ci lu dul ñam loolu lañ wax loolu lañ wax maam seen njëlbeen wax loolu lañ wax waaye ñu baaxee ne mazhab bi léegi dañu wax benn wax au bi dem ba jamono changé ñu soppi wax jooju gis na la ñu waxoon daal jamono laajatoo ko ñu changé waaye li gën a wér mooy bu dee mazhabu euh, xanbal li wax ñoom nañ ko génne ci lañuy dundee dañ ko génne ñoom ci lañuy ñuy dundee kon bu doon fu mel ni Sénégal li mu wax sànq soo joxee dugub wala ceeb wala ñebbe wala mburu wala sax nga Eh, tibb ab bool togg bam sotti nga tibb ab bool defar ko ba mel na war a mel jox ko ko moom subaa wér na bu dee masabam muy Ahmad ibn Hanbal bu dee Shafi'i yi seen masab dañuy wax ne ñoom nañ ko génne ci lépp loo xam ne dëkk booba ñi nga nekk baaxoo nañ koo dundee ci bisu feet muy bisu korite wala tabaski wala bisu ndax ci lañuy wax ñoom seen masab dañuy wax ne donte la jën la waaw donte la jën la lañuy dundee par korité sax soo ko jigéen génnee wér na nga xam ne kon réew mu mën doon la ñuy dundee korité soo ko ca génnee su waaye wér na moom noonu la ko gisee moom masabam bu dee Shaafi'i donte jën la wala mu ay yére bu dee nag euh, maalikiya seen masab dañu wax ne dagan na génne ko donte ci mburu la wala yàpp donte mburu la wala yàpp nga xam ne bu doon yàpp tey nga génne ñaari kilo wala sax benn kilo bu suur nit waaw wala sax nga génne mburu xool ci mburu lu tolloog ñaari kilo nga joxe ko wala xool bopp yi nga war a génneel nam toll nga kalko ko ci mburu joxe ko ñoom seen masab wér na buy dee xanafiya imaam abu xanifa moom nee na daggan nga génne ko ci mone muy xaalis lañ ca teg mooy bal hada afdal wa aktaru nafaan lil faqir nee na génne ko ci xaalis moo gën te mu ëpp intérêt ci ki ñàkk nekk wax joo xam ne ñu baree bari d'accord nañ ci ak moom ñu bàyyi xel nag ñeenti wax yi ma wax yëpp te ma wax imaam Shafii yi wax imaam Malik Ahmad ibnu Hanbal Abu Hanifa ñeenti wax yëpp wér na ndax seen mazhab yi ñoo école yi gën a wér ci charia boo ci def wér na waaye suñ doon talxiis lu ñuy wax talxiis mooy suñ commentaire ñeenti wax yi mooy ala kulli xaal li gën ci koy génne mooy def ko def ko def ko def ko xaalis ndax rasulullaay li mu doon bañ rek mooy ki ñàkk génn di laaj yi bisu feet bi mbokk yi xam nañ ne Sénégal tey korite ak koo fi jox dugub wala ceeb lu mu bari bari bari te mënul boppam day obligé wu dem jaay ko su doon soo ko jëndee yow kilo 300 jox ko ko mu ne wantal ko kilo 200 wala kilo 250 loolu yàq la. هذا الذين حافظوا على صيام شهر به أخلق باب للإيام